maa ngi leen di fay di ziar àddina bi yëpp di leen baal wax ci kàddu yi di ndokkeel àddina bi yëpp di ñaan xam na ko li seen jàmm sunum réew ak bitim réew di ñaanal suñu xalifa Pape Doudou Makhtar moom njabootu Seydina Limaamu di leen ndokkeel seen bisu maam gi di ñaanal sëñ Mountakha Bassirou sama baay bi xam nga xale yi xalifa yi fi nekk yëpp ku ne am nga looy représenté. Mm-hmm. kii fi nekk tey sama baay la mais man mii di doomam defe naa lu mat 17 ans gisuma ko teguma ko dëkk mi ngi ci kër gi mi ci dëkk bi li muy firi mooy njàmbure ak maalo ak tey si bopp fi la àddina toll suñ taxaa ba si tamit ba muy tim suñ si di maxtaar naa xam yàgg fi tuuroo wala suñ nga toog kon mbàkk balay si mën a jànga fi yàlla bàyyi moo ko jamono Seexul Xadiim suñ si mbéy si Mansour la jaak dëggu jaak jàmm ko ne ca moom bu baax ba fii la ñëw ne leen sama doom laay jaale si papam kon maa ngi koy ziar ak njabootu Sidi Hadji Malick maa yi Niass le régulateur yàlla defal ko jàmm soo demee Ndiassane bam bu Kunta Ndiassane ak lew na Niassène fépp yem ci àddina ba ci jàmm bi jàmm lañ soxla suñu réew borom ka solo jam nee na yonent bi dafa ne lay ma nit cëpp bàyyi laay nit ci laa ne aju boo daay lay sëñ Fallou nee na ku góor essence du hôpital bu tàkkee yow lay jëkkaay nanu os jàmm loolay nuyoo bi asalaamaaleykum am na solo waaye euh, euh, du xawul coïncider ñoo bokk. waaw waaw dañoo bokk sëñ Fallou lu leer la wax dafa ne yonent bi dafa ne lay ma ni cëpp suñu paree ci euh, saabaan bi defe naa bu nu paree ci rajab bi saaban moo ci topp maa ngi laasé waa addina la moo tax yonent bi ne woon ni saabaan sahri lu taxoon mu ne woon saabaan mooy sama weer. parce que xamoon na ni ci lay ñëw mujjug jamono muy borom oote bi di Seydina Imaamul Laahil Mahdi Muntasar moo tax Serigne Fallou ci boppam ni woon moom it yonent bi dafa ne lay mënuy cëpp wàcc kon weer wi daal weeru barke la yow ma saabiati isrina fii rajab imsaaka Seydina Imaamul Muxtarim lamaaf la xalaaw sub an indatal ati samsi yow mal ahdi daha saxlay ni kullahini fa rafia zawta zikrallaahi xaala ajibo daye laay saxaray ni kulli ni loolay oota bàyyi laay bi mag yëpp bokk Sénégal képp toog kon li may wax rek moom laay delluwaat jàmm daal moo gën ci parce que ay mag baax ñoo fi nekk ci barke si naa ne moom. 144e édition mais Abdou Diop day gën a Abdou Diop waa xam nga xam nga kon weddikat yi ñoo war a xoolaat seen bopp. wax naa ko démb ci rajo bi wax naa ko bër démb ci Sen yi waaw mais bu màggal Touba jotee part droit la embouteillage bi commencé ñooñ ñëpp kenn bëgg leen nax. Mm-hmm. maintenant ñëpp rang jëm Touba ba Ngabou du ma nooy sëkk tànk. Mm-hmm. léegi sëñ Bamba bëgg a nax ñooñu ñëpp kon li muy woote dëgg la. ku ñëw yoof tey wala nga dem ngor nii léegi suba boo ñëwee jàmmalaay soo moytul doo fa xaj waxuma la cérémonie officielle waxuma la man rek man ñi xale bi waaye ñi fi ñëw maamu gaa yu baax yi toog ba muy woote dañ ko doon wax da nga dof 1883 ay mbokkam ne ko da nga dof sama maam tëbul tëboo de sama ñoom papa fee nekk tey léegi ca ngor fa la leeram nekkoon junni at muy seet fan la war a jëm bi mu gisee fi mu war a jëm li tax lébu ka misli xuraysin màkk ay xërëm a fa nekkoon lébu gi ay rek fa nekkoon bàyyi lay ñëw wasaara xàmbeya toj ka toj ndaay saxal ci baatu laa ilaha illallah moo tax ñun sonn na rek ne laay laay moomu dumaxtaar loolu mooy wante sëy naa li laay il a été dafa noonu mën a démb mën a tey sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla yokk leeram léegi euh, laay laay Makhtar na nga gisee actualité Sénégal bi dëkk bi. actualité actualité Sénégal de man pour man loolu sax du actualité. mën naa ne sax du tolluwaay. ñi dof topp rek ñoom am problème. man foofu rek loolu rek laa ci wax man kenn du ma dugal ci lu ma bëggul bu may topp bu may topp damay topp sang su damay topp sëñ Muntaxa Bachir. fu mu joxañ ma joxañ fa sëñ Bay Si Mansour fu mu joxañ ma joxañ fa sama baay bii fu mu joxañ ma waxuma la sax ñoom mais sunu mag yi rek Cheikh Mbacke mi nekk fii rek. lu mu joxañ ma joxañ fa bu ñu tënkoo ci kilifteef coow du am. waaye bu ñu ñi ko ñu nekk ci ginnaaw yi à part di saaga ay nit seen affaire la ki leen di tontu wala ki leen di déglu kookoo am jot man awma seen jot mhm. yàlla xam ne ne awma seen jot jot gi ma am mooy lii parce que ba ma xamee ni yàlla ak yonent bi mi ngi ci yoon yi ci yoon walaa jël xam nga bu ñuy waxante te yàlla tax bi sëñ Bàmbey dem géej amul ku ko gunge maamu kenn gungewu ko mhm. sëñ Tuubaa bi muy dem fukki doom ak juróom dee na mu suul leen xur mbàkke muy dem bind asirumaal abraar kenn amul famille bu gunge seexul xaddim dafa ne am na ku ma gunge kan la rafiixi kitaabalaay wal Mustafa nabi wa asxaabahu fil baari xiina aduuru kooku sa morom kooku xeex li muy xeex dem ba Gabon ñii di wax seeni baay bu ñu leen fa boole woon ak muus dee nañu ba yàgg mais Sëñ Bamba dem ci géej gi ñu boole kaag gaynde boole kaag nag bëgg ko toroxal mu maf ñaandu leen ñibbi si andi Touba tey. kuy waxal yàlla su màggal jotee Serigne Touba mi taxoon màggal gi am naanu ci kaasu ndox lekk ci soble te lépp bakk bàlay si moo ko waral kon li ci war mooy jël xol yi dëppale ka si laaji yaa ngi xalaat yaa ngi xalaat waa ji ni gàmm dafa araam Maodo tontu ko wal këfu ma darabat unsan wala zakaran ma xaadiman aba min xaybin walam gis nga si laaji Malick nga Seydi Hadji Malick kee taxaw ni gàmm dafa arab yaay rasul laay ëmb ba am ba am six ni ëmb na Maodo ne xam naa ko xam naa ka min baadi maa xat xalat waawun yuqaalu la kii wax ak moom kan la ha anti xeeru màkk xeeru màkk yi ak garu màkk yi ñoo doon wax soxna yaa ëmb xeeru xalxulaay doxal ndànk ha anti xummilta badran seydal umami ñu ne kat di doxal ndànk xeeru xalxulaay Aminata di geesu xamul ñi muy waxal ñan la léegi Maodo ne Tiwaawan dégg xeer yi wax rasulilaay nekk ci grotte bi. Sidi Hadj maa ni maa ci suufu grotte bi wa kaana bat an ala xubbil xalaa'i ilaa an jaa fil xayruwul xutti la mi bàyyi laay taxaw fii. Seydina Issa nekk nii fii ñu xëyoon ci suba kookoy taaw Seydina Limaamu ñu bëree bëri dañ naan kookoy Limaamu tudd Limaamu Limaamu tëdd ca Yoof sama maam amul photo kii tëdd Cambérène mooy taawam sama baay di taawam ku tedd kii di taawam ku tedd kii di taawam te mam Seydi di tëdd Cambérène beneen affaire la beneen affaire ngi noonu na senegal déglu de yàlla moo ne woon reyu ma Issa daaju ma ko kenn kenn reyu ko man yàlla yéegal naa ko ci kaw dinaa ko wàcce waat de anamu soo demee Amérique da ngay gis ci panka yi ñu naan Jésus is coming Issa day ñëwaat léegi oui Issa wallaay américain dañ naan juge bi is Gabon ñu naan juge di ñëw xam nañ ko parce que ba ñu demee euh, Galilée Nazareth Jérusalem Issa yeeg bi muy wàccaat mu ànd ak benn niir moo tax ñu ne Issa buy ñëw 33 ans lay wàcce ci at mbaam mu am benn bët lay war genn nga day weex dëkk ba muy dëkk kaam lay tudd. maam Seydi am fanweeri at sama maam génn ko nag Isaama Ndaw ñaari kii mun bokk mbalk sama maam génn fi dem ñu génn ko mu dem Tëngéej ñu génn ko mu dem Pout ñu génn ko mu jaar Tiwaawan góor ga peese ga nag mu Ndaw nga tudda booy ñëw Isaama mag ngay doon mu jàll Tayba Ndóomóor kër Baaba Alami kër Njobba jóge fa dem Fass Faat Tayba te nanu fàttali ne yàlla ne woon na ma jaala ni nabe ay namaa kuntu fa Isaa jaar xéwal dina fa am fa sama maam jaaroon muy Fass Faat Tayba zirkon baa ngi fay phosphate euh, baa ngi fay feeñ ay milliards ñoo fay génn kon li mu waxoon dëgg la mu am fa ñetti at baayam génn àdduna mu borom woote bi mhm. génn àdduna bi mu génn àdduna ñu war ko rob bu dul woon dëgg maam sëy naa li maam génn na àdduna ñeenti fan kenn robu ko bu dul woon dëgg day composé wu mais keroog la gën a rafet maam Seydi jóge Tiwaawan war saxaar ñu compté Tiwaawan ba yaraax muy sept gaar sept ciel sept gaar mbaam mu am benn bët train bi lampe ba ca def li la naan mbaam mu am benn bët ah. Mhm. labbe yi taxaw même jour ñu isaa tey jii lay ñëw kon su bàyyi laay ne mën a démb mën a tey te dañul tabax ay armeel 1914 ba tey feesul tabax ay armeel yoof la 29 août 1909 feesul te armeelu bàqee yii mi ngi fees te yu bàyyi laay feesul gas kan gas teen bu neex ci boori géej gi muy génn ndox mu neex la mu waxoon bu du woon dëgg du mel nii mhm. kon ñu ngi ndokkeel waa àddina bi ñun doxunu ci tariixa man tey boo xoroon sama dënd di nga ci fekk Seexul Xaddim dëgg la soo fekkoon ni fekk sëñ Babacar Si di nga fekk mag ñi mais am na ku bëgg Modou Lo demal nga yedd kooku am na ñu bëgg ay mbër ba ba seen mbër bu leen daanee du ñu reer léegi man ma bëgg sëñ bi nga may yedd la may yedd le 11 mai bu jotee gars yi am na ba waa waa ju ñuy feetal ku tudd bopp Marley dañ koy feetal di ko màggal du ñun du ñu màggali ñun. kon noonu rek la yëf yi demee Sénégal nañu bàyyi wax ju bëri te soppandi Serigne Babacar Sy neewoon na ku amul parfum dendee dendeel ak Serigne Mbacké Touré mi ngi xeeñ parfum mu yóbbaale jàmmam nañu soppante bëggante fii la yëf yi nekk de ku ku sonn yaa sonal sa bopp ku tardé yaa tardeel sa bopp lu waaye ren di sa loxo lay nàcce waaye bu wëccaxoo ku mu dal di nga raxasu nañu bëggante foofu la affaire bi ne waaw <laughs> secret bi yàllaa ko santaane. yàlla ni dama am famille waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu xoolal kii papaam sëñ xabbaan Gueye ku xam sëñ Abdoulaat xam nga sëñ xabbaan Gueye papaam ak sama baay ñoo daan ànd di dem tuubaa di dikk ñii ñëpp sëñ Mbàkke Touré sama gars yi tu sëñ Moussa ñun ñoo bokk lépp li naan équipe ñoo bokk équipe ñu mm-hmm. parce que lan l'islam moo ñu link yàlla moo waxoon yàlla moo wax ni lislaam benn buum la ngayaalu leen ci bu leen tàqalikoo loolu yàllaa ka santaane du link yàllaa ka santaane waaye ji daf ma bëggoon dugal xam nga gars yi dafa bëri ay seytaane waaye daf ma bëggoon dugal ñoo ne ma dégg naa murit parce que boo ma niwul saafex nga ma tooñee yow marché ba tas dafa bëggoon lu mu yóbbu ma ne ko soo mënul woon saadix rek ma mere la mais saadix la mais xoolal béytu Seydi Aji Maalik ñun ñun koy waxee su burda jotee damay burda Sëñ Mbàkke xam ne li may wax ñun loolu mooy suñu secret ñun dañoo war a bëggante la preuve sama kër baay ngay fekk Cheikh Mbàkke sama kër baay Cheikh Abdoulaye Lahat sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou sëriñ Basirou soxna Jaara sëriñ Modou Moustapha Euh, Cheikh Tidiane si euh, sëñ Mansour El Hadj bu Sakho bal xaw mi fii ma dëkk ci gannaaw moo fi dëkkoon daaw géej la nelaw kon lépp benn la géej gi nag. géej gi ku yor usine suukar. dafa mën nga kaa suukaraat sa bopp a ngay nag si suukar ay jeex te géej bi fex ñu balaa ñuy jeexal sëñ bi bi euh, nga jafe-jafe yi nga xamante ne moo ci réew mi fi ne réew mi soxla nañ ñaan soxla nañ euh, jàmm nañ ko xam nga jàmm ki ko bëgg moo koy ut rek mm. nañ ut jàmm rek nañ ut jàmm rek jàmm ku ko utilit sa bopp rek ngay sonn nañu ut jàmm rek am na lu lu waaye ren di sa loxo lay naaj sa dëgg la mais man nan bàyyi saaga yi mm-hmm. saaga moom garaawal sax yow li nga saaga nit ki xool ba sëriñ bi wax ba saaga geesul ndax am na sa këram déet jar tontu nan ut jàmm man di loolu rek laa ñëw nan ut jàmm jàmm naa gën du nu seen moroom du génn du nu génn di wax parce que duñu seen moroom dégg naa ñu naan ñoom dañoo bëgg lu yombal seen affaire la yooyu yëpp du problème sëñ Muntaxa ñun njabootam duñ ko seetaat muy wax ci yii xam nga nit nit da ngay muus sëñ Muntaxa doyul xaalis dara à lu mu bëgg am na ko qu'est-ce qu'il yàlla feneen foo ko classé nag loolu sa problème la muy sama baay muy sëñ Bay Si Mansour muy keneen ku leen saaga yaa xam saagal ba géej gi ñëw sa kaw sa affaire la amul problème. ñun la jaajëf laay laay la yàlla yàlla yokkee seen amiin amiin allahumma amiin amiin amiin yàlla jàppale incha allah jërëjëf kontaan nañ macha allah kontaan merci beaucoup